jërë ngeen jëf yéen mbokk yi nga xamante ne si yéen saxoo di seetaan site bi nga xamante si mooy murid point info man day ci am saaliw maa ñëwoon di leen digtal émission bu bees tàq yéen ñi nga xamante si yéen ba nga fesal seen wàllum liggéey man day ci am saaliw dikk naa la sama micro li ci demee ci wàllum tailleur cosmétique jaaykatu cuuraay prêt à porter bàyyiwuñ kenn occas en ligne ci Mouride info lay xewee yéen ñi bëgg a fesal li nga xamante ne si moom ngeen a liggéey comme ni ma leen ko waxee woon rek samay service commercial mi ngi noonu ñu defal leen liggéey bu mujj te xeewal